ci histoire politique gu Sénégal beneen bi ñuy recruter ay jeunes di leen fay cinq mille francs pour ñu remplir salle bi pour yuuxoo xalifa Ababacar Sall ku ko def député la bu jigéen bu APR ci yoonu APR lu ci yoonu APR kon dañuy nangu ne le procès est politique nee ñu Khalifa Ababacar seen njiit lañ jàpp am nañu droit dem fa waaye yow mi nga xam ne da nga ñëw seetaan lu sa yoon ci yuuxu Khalifa Ababacar Sall ñuy recruter fii ci Gueule Tapée mille francs ay jeunes ci leen dugg mais Lassana Ndiaye bi dama ko yërëm procureur général ndax jour ba mu waxee loolu téléphone am noppewul kar kar yi réunion ba am en haut lieu ay patron de presse bokk ci ay nit bokk ci parce que jàpp nañ ne la mu commentaire di wax ne décision du juge bi il faut ñu respecter ko sinon les états membres de la CEDEAO bu dul respecter décision cour de justice CEDEAO dañuy plongé wu dans le chaos ba ci joxe exemple di wax Mamadou tànnaa bu Niger dañ ko libéré après une décision de la CEDEAO ñaar yuy wax yooyu mu wax moo métti lool pale léegi nag la ñu bëgg namm ko mooy reconnaître décision CEDEAO bi mais jàppandu ci ne décision bi waxul ñu libéré Khalifa Ababacar Sall loolu lañ bëgg a langaamu moo tax boo déggee ñoom ñëpp ñuy wax te maa ngi leen di béral ne ñi ngeen dégg ñëpp ñuy wax ci complot bi lañ bokk ñuy wax ñëpp ci complot bi lañ bokk dem na ci ba ministre de l'hydraulique Mansour Faye te ñoo jox ndox bu nit ñi sangoo ko naan di ci wax bay wax lu ëpp ci magistrat CEDEAO yi moom war na am lu ko doy ndox sénégalais yi amuñu ko dañ leen wax ne Karim Wade ak plan tàkkalam bi joxuñu woon courant ci temps Abdoulaye moom goro président de la république mënuñoo jox ndox nañu audit milliards yi ñu def foofu nañ audit milliards yi ñu def foofu dina ci dellu si kenn yàkkamti dañ ci dellu si fa lañ bëgg langaamu moo tax ñu bëgg a indi bataille médiatique bii nga dégg yoon ñëpp di wax fa la ñu bëgg a langaamu di wax ne way léegi sax dangay dégg police ak parquet ña ngay xuloo police ne nangu woon nañ kii di avocat Khalifa Sall ñëw procureur moo woote ne na génn ci biti procureur na musta def loolu da pare di wax sax ne Khalifa Sall nàmpaay nañ ko 35 euh, million kon maanaam daal boo jàppee nit di ko torturer bu ñu daanee na nit kooku fay ko lii mën nga ko continuer torturer mais fay ko loolu rek mais dama ne il faut ñu arrêté tuuti parce que euh, bëlde bi ak teg nit ñi ngaaka moo fi jeex yàgg naa wax ne koo jàppee dof mu ngi wut garab yu mu la fajee koo jàppee dof laa wax mi ngi wut garab yum la fajee te sax seeni garab jafe respecté décision bi mooy lan libéré Khalifa Ababacar Sall bu leen tollalee noonu ñu tàmbaliwaat seen procédure topp ko mais bu leen tollalee noonu dañ ko war a libéré lu tax parce que base inculpation yépp fausse yéen a ngi fàttaliku dama ne dañoo auditionné Khalifa Ababacar Sall ñoom Mbaye Touré ba pare procureur doo ko def conférence de presse jàkkaarlook journaliste yi ne leen bañ koy auditionné léeg-léeg li fondement booboo bon bâtiment bu fondement bi yàqoo day daanu vice de procédure moo am képp kuy waxal yàlla te nekkul def ay contorsion ak loolu yépp xam nga ne te àqulaay tàlla xalifa Ababacar Sall ak ñamu ànd ak dañ leen war a bàyyi bu leen tollalee noonu nag buñ ko bàyyee ba noppi nee nañ ko cirib commencé waat seen procédure lañ ca yëg nag moo di bi Jaabi mayuñu ko jàmm ñu ko jàmm benn yoon topp nañ ko sonal ko lool yegg nañ ci sax balan def instruction écrite ne ko fala budda te réquisitoire bi nga nar a def jëmale ci Xalifa Sàll tëj ci kaso rek te mënu ko bañ a def ndax nag kii kilifam mooy ministre de la justice bu ko sante da ko war a def moom la ñuy wax ci wàllu yoon la parole et libre la plume et serve ba tax ci réquisitoire am di ko gis mu wax ne bëgg-bëggam moo di ñu téye kii di Khalifa Ababacar Sall ci biir kaso bi waaye nag bu nekkee ne lam dan woote ca moom góor gi sax ci dëgg ak droit il est libre bu nekkee ci tribunal wax la mu xalaat lii rek li muy wane lenn la moo di état bi pression bu ne ñu ngi koy teg ci kaw Khalifa Ababacar Sall sëriñ a leen wax tëj leen ko waaye nañ fàttaliku benn mbir ne waxoon nañ fii na Macky Sall ñaari at du ko weesu ci mandat ñoom ñoo ko doon wax de ñoom ñoo ko doon wax seen biir tey jii mi ngi jeexal màndaam kon gëm yàlla bokk na ci tamit léegi nag bal bi mi ngi ci camp bu justice ñu xippi du xool ba xam fan lay mujjee ma kontaan tamit lool ba président ne du subir benn pression ci beneen anam lu tax ma def ni mbër yi di def ma limal la rapportu OFNAC 2014 2015 di wax ci wàllu détournement deniers publics poste ak kudd ak yooyu ñu ngi lay xaar mbiru sécurité port bi nga xam ne benn ancien ministre de l'intérieur dañ ko ciy tudd mi ngi lay xaar président 2016 ARMP rapport yi mu génne lim service étatique yu bari yoo xam ne ay njombee ci am mi ngi lay xaar sa xarit Big Togo indemnisation coûte milliard 13 12 kenn xamul ñaata la mi ngi xaar ñu leeral ci sénégalais port ak lañ fa tudd ci scandale financier mi ngi lay xaar privatisation King Fahd liñ ci tudd ci scandale mi ngi lay xaar rapport UGE ci Petrotim bu soxal Aliou Sall mi ngi lay xaar mbiru détournement timbre fiscaux ak fausse quittance mi ngi lay xaar ak bu mujj bi Prodac loolu yëpp mu ngi lay xaar waaye nag ma fàttali la ne loolu yëpp ma lim ñu ma soxal ñëpp ñu la sës rëkk xaw ma nag ndax di nga ko càmbar am déet ndax boo ko càmbarul ak lu leen di tuddal lépp day mel ni sa nguur kumba am ndey ak kumba amul ndey lay doxalee te loolu sénégalais yu bari ñu ngi koy wax jeexal ak euh, kàddu yi nga xam ne daf ma def ay ree moo di ba ma déggee directeur cabinet président de la république Oumar mu ne opposition bi day jot koppar ci bitim réew ngir déstabiliser Sénégal dama ne ñu lan lañ def yàlla ndaxte bu ma déggee kàddu yi dama ne évolué wun billaahi évolué wun évolué wun benn yoon xam nga lu tax ma wax loolu lii lañ den jiiñ Macky ba muy wut nguur gi président Abdoulaye Wade ak ñoñom di ko wax affaire blanchiment d'argent conteneur xaalis la ko Omar Bongo jox jóge na fi Côte d'Ivoire ñu wax na ko xaalis lay indaale lii lañ ko doon jiiñ ngalawaay changé leen paradigme ñu wane ne Sénégal évolué na tuuti inventé sax ay accusation yu bees pour ñoo xam ne dox nañ ci wàllu jamono waaye yu yàgg yi ngeen di inventé yi dafa yàgg dafa xewi dafa démodé du am buzz rax ci dolli képp ku fi nekk. leader nekk opposition bi yéen a ngi koy tracté ci compte bancaire am yëpp ba ci prête-nom yi. am d'affaires yi nga xam ne ay xaritu xalifa Babacar Sall la noonu te ci deuxième tour am na ñoo xam ne sax jàppale nañ président Macky Sall ci euh, Khalifa Ababacar Sall ne leen jàppale leen waa ji dimbale ko mais ñooñu ba dossier bi tàkkee laaj leen seeni mbir yu bari dafa kale redressement fii convocation fii lu ne kon di gëmloo sénégalais yi ne opposition bi mu ngi jot xaalis ci bitim réew dërëm bu fi dugg opposition bi leader yi dërëm bu dugg seen compte jóge bitim réew porox ndoll la bu ñuy jaar téye leen te service financier yu nekk ministère de l'économie des finances ñi ngi leen di surveiller comme du lait sur le feu maa leen wax loolu comme du lait sur le feu kon di wax loolu d'abord dafa xew yi parce que yii la juuf Diouf Ablaye Wade doon wax kon ci nguuru Macky Sall nañu beesal sax ay accusation wane ne réew mi évolué na tuuti waaye dafa xewi waaye nag bettuma parce que transhumance mi ngi fi ba tey maanaam daal ci wàllu évolution éthique ak euh, am xarkanam bu bees ci nguur ci pouvoir exécutif foofu moom bilan bi bu nekkee mën nañ ko te amuñu moyen leen sant di leen gërëm di leen dig dajee seen beneen chronique seen site dakar matin point com incha allah asalaamaaleykum mbokku internet Leuz TV ginnaaw bi ñu nemmeekoo ay jafe-jafe yu bari ci wàllum coupure ndox bi wàcc nañ ci askan wi laaj leen nan la ñuy dundee jafe-jafe yooyu. ni ñu gisee coupure yi xanaa metti lool metti bu tar